may dalal xel ndax am na soxna su jug sànq ne enquêteurs yi ñëw nañ fi daaw enquête table bu ne waaye ba léegi gisuñu financement ma leen di wax nag nañu daw ndax enquête yooyu biñ koy def cent onze marché yi nekk région de Dakar yëpp la ñu dem données yëpp a ngi fi ñu ngi koy traité te enquête boobu ministère moo ko def de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire lu tax def enquête bobu, président Macky Sall dafa yëkkati ministère bu wax microfinance ak économie sociale et solidaire ne lenn rek laa si namm képp ku jog di dans sa doole na la doole état fekk fa nga ne kon buñ koy defal liggéey boobu te réew mépp war si bok, dañu koy jël def suñu temps ndax bi ma nekkee ci bopp ministère beeg léegi li ñu bëgg soppi ci microfinance mooy nit ñi foog ne da ngay ñëw ñu jox la xaalisu état nga dem ak moom boo waree fay doo fay loolu foog mu dañ li tax mu war a dañ mooy ñëpp a soxla koo puus mu dem comme koo puus mu dem nag ku jiitu bu demee ba fa mu yem dafa war a gestu ko ca gannaaw motax liggey biñu fassiyene def ci ministère bobu dinañ ko saytu jox ko temps bi mu wara am ba lepp yem kon na seen xel dal ne du intermédiaire yu len di nax li ñu fi ñu tek si ñu tank ci liggey bi dañ koy def liggey bu set ndax kañu ko sant motax kañu ko sant dafa jël yermande tek ci kaw askan kañu ko sant dañuy tok ay nit dañuy tok suba ngone guddé ak beccëk di kan kan tek ci deram lu ñaaw te du ne um kañu ka tek moy ko xamne suba ngon gudde ak becc du noppalu lepp ngir dawal njabot te njabot gi mi dawal moy senegal kon buñu nekké ay ndawam nek ay jëwriñam danañ def liggéeyam bu set kon na seen xel dal